yeen dal da ngeen jek jek jékki di dugg ci keur di khatar xatar yi porte bi daa ubbeeku rek nga ne xaaral nga jang ah ayo ah, yeen dal da ngeen jek jek rek genn di la nexe di dugg keur xam porte bi ko sax nga meuna taxaw fi wax salaamaaleykum alaykum la mais dama la gisul won ah lo ma tegon maa nga ko daanu fi waaw ah, ma yaakaar ne sen nawtu keur mo nangu rek ren wa nangu na hmm, waaye booy duggati ci keur bo xol gisoo fa kenn nuyoo assalamu alaykum daa bax dégg nga na nga def. maa ngi fi koy seet. Ah? daal caw mi daal góor gu yor xaalis ngeen bañ a gis yéen daal bu leen gisee ku yor seen cër yi day taxaw jigéen ñaari moo ko mën a xam ci góor góor gu yor ak góor gu ànd ak leer da koy recherche xenc ko comme ki xenc ay xayta jël lépp nga ci la nag ba nga jeex mu romb la woon la ginnaaw. bàyyil Abdou mii day door a door Abdou jigéen mosu ko fay si mu commencé mos rek ngeen commencé ñu ma fi toi d'accord daal jaw maintenant daal góor gu yor xaalis ngeen bañ a gis yéen daal bu leen gisee ku yor seen cër yi day taxaw jigéen ñaar moo ko mën a xam ci góor góor gu yor ak góor gu ànd ak leer doo koy recherche xenc ko comme kuy xenc ay xayta jël lépp ngecelanak bangaja muram-murawan lagi nau bayan abdu mi day doro dor abdu jigéen musu ko fee set mu commencé mos rek ngeen commencé ñu abdu abdu lum yor dama la laaj abdu lum yor mbaaru danga koy gisee solo moog si nekk boobu noonu ba yaakaar mu ay ki ki dama la abdu mi mënoo leen koo xam après ngeen koy xam Abdou ngay seet. Abdou lay nekk fi genn kër gi. loolu c'est impossible. ndax Abdou maa mu ngi fi. mais man mi dëkk fii borom kër yi nga fekk ma fi Abdou nekk fi nga ni ma lan. dama fi moo ma woo. ah Abdou nekk fi léegi. <laughs> wax ma leneen. Eh, xool nga ci biti. <laughs> neex nga de. Hmm. Abdoulaye Seet nga ni ma génnal kër gi yow yaa ko moom. sama kër nga fekk ma ah. lan mo lan moo ma wóor ne gi yow ya ko mom olof Ndiaye nak neena wayen wayen yéen waa yéen nga baal yéen mënoo leen bàyyi ku ci bëgg fen rek ni olof Ndiaye neena na ah te ku ci bëgg wax sa deug dal ni eh, tubaab sa far ah bal len olof Ndiaye loolu nak dina jógaa ah. noq ci ndëg bu mu ku ci sanat naan ay olof Ndiaye neena te nee na ye nga yéen xaajoo rek ye bo len yéen rek ni olof Ndiaye bo len jógee rek bo len wax deug rek ni tubaab saa par ah yéen xanaa ñoo rek ñoo fi de ñoo olof yi ana séeréer ana tukulóor yi ana bambara du nee na ñàkk xam waral daa xamoon nag doo toog fii naan Abdou yor naa yorut ak ay nelawam doy naa nelawam doyut mu ngeeg lépp loolu yow yaa koy wax waaye moom du ko wax maa ngi dem nag waaye da boo jógee boo gisee ab yow xam lañ jógee jógee yow yaa jàpp ne Abdou yor na waaye mu Abdou moom xam na ah, xam naa la man ah, xam naa la naan yow waay yow yee xam naa la wax nga dëgg xam naa fi nga jógee agence firi nga jógee eh c'est yore agence firi sa rouge bi nga def nii ak sa sac bi yaa am nga piis eh eh eh yore jaaykat ngeen di doon nga ah non daa ngi ba ma gisoon ci yow eh, eh. Hmm, yow tus xel rek bëgg góor ba dee xale yu góor yoo xale yu jigéen yoo xam ni góor li ñuy bañ a gis